na yow dafa am solo ci société bi mm-hmm. ndax jigéen ñi bëgg nañu sëy góor ñi mm-hmm. bëgg nañu téye seeni jabar mais dañoo jàngewuñu mm-hmm. jàngewuñu formation yi des na parce que kenn ku ne jaaroo fa nga war a jaar damay faral di wax ne société bi léeg-léeg jigéen sax ëpp sens góor ndax góor léeg-léeg buñ ko jëlee yóbbu ko daara mu ñëw métier lañ koy wutal mu dem jàngi métier su paree métier moomu Mm-hmm. lan lañ koy def utal soxna mm-hmm. kon kooku ba tey formation am dafa des ah, ah. mais bu dee jigéen mu ci biir kër gi mm-hmm. yaay mi ngi raxas ay tànk mi ngi toppatoo papa mi ngi def li ko war kon kooku mi ngi jàng sëy bi kon su yaay yi baaxee bëgg papa yi di doxal yoon kon kër yi dafay baax ndax sëy bi xale dafay xool ci yaayam xale day xool ci papaam ndax xale su dee gis yaayam bëgg papaam chaque jour ñu ngi waxante kàddu yoo xam ne dafa rafet Mhm. kenn ku ne yaa ngi rafetal di jëme ci sa mhm. moroom mhm. kon moom bu sëyi jee kenn du ko jàngal gis nga léeg-léeg ñuy muur séet jotaay ba yàgg lool li may wax naan dama naan xale bu amul formation la mais jotaayu muur séet warta yàgg ba ñu ñuy jël si séet ba di loru wala ña koy joxe di loru ca toogaay ba ku am formation jotaay ba warta yàgg kon nañuy former suñu ay doom te xam ne sëy jaamu yàlla la nañ koy dañuy insister ci sëy di wax ne sëy jaamu yàlla la ndax Mmh. sëy rek moo ñu war mmh. te sëy borom bi daf ñu cee dig àjjana mmh. rafetal jëme ci sunu borom kër rafetal jëme ci njaboot dafa am solo Seyda Fatima kontaan nañu lool lu neex du doy waaye temps bi tënk nañu ñi ngi lay jaajëfal di kontaan lool ci yow macha allah comme niñ ko waxee rek Seyda Fatima Lo Dakar am nañu mbégte ak loolu bokk yow plateau bi mm-hmm. macha allah waxtaan bi neex na am na solo mm-hmm. ndax ñun ñi toog di laajte sax liñ ci jëriñoo dafa bari kon waxatuma laak ñi nga xamante ne ñoom ñii toog dañu seetaan mm-hmm. kon ni ñu nit ñi dégloo nañ ko jëfee yal na yàlla def dégg ak topp ndax wax yu mel ni dafa am solo mhm. comme di Seyda Fatima loo Touba wax rek mhm. baat yi nañ ko bàyyi ak borom kër yi mhm. man de Seyda ginaar sax su ma ko toggee sama kër damay jël baat foo ko jëlee ma leen seen papa ko moom baat ci kër bi léeg mooy la pour lan la nga ne ko lépp lu fi baat yaay yaay borom kon ki nga bàyyee baatu ginaar doo jël baatu nitam wala baatu jëmmam kon nañuy bàyyee góor ñi seeni baat nangu tamit ñu yilif ñu parce que mhm. yëlif ñu dafa neex mhm. maa ngi dem fenn xaama tàggu sama borom mhm. kër bu bàyyi ma dafa neex dafa neex xaaral kaay gunge ma fi nga ne yi xaam nga sama borom kër ba pare loolu dafa neex ñu xam ne yow am nga koy wo am nga koy waxal moom it mu yolomal ñaanal la yombalal la yoon bi nga dem ci jàmm ñëw ci jàmm dafa am solo kon góor ñi nañu defaruwaat nañu amaat taxaw seetlu Mm-hmm. tey képp koo xam ne yaa ngi déglu émission bi góor mm-hmm. la nga ca moom na nga ko ci jël mm-hmm. la nga ca moom na tamit boo xam ne xam na àddina na jël cëram jël cëru jigéenam yëpp cëru jigéen bi yëpp boole yor jigéenam di ko xamal di ko fàttali parce que am na ñoo xam ne bañuñu dañoo xamul mënuñu dañoo xamul il faut ñu xamal leen Mm-hmm. xamle dafa am solo xam-xamle mm-hmm. mm-hmm. dafa am solo te ñu melni yeen dafa baax société bi di xamal jigéen ñi ñu dellu seen bir néegu sey amna ñoo set jafé na leen kaddu gu neex jafé na leen togg gu neex jafé na leen leneen ak leneen ak leneen lépp jafé na leen dañuy dem ba seen burum kër dañ koy téré seen bop ci seen kawla bari na jigéen ñoo xamne dañ koy def tem lañ koy defal xam nga loolu bari na ci bu demé bu jigéen ki la tak indi la nga di ko sa bop ci kawla defal ma li wala duma la def li man dama naan loolu sax jaay sa bop dañ ko tuddee jigéen ñi ne ci mbedd mi mhm. mais jaay sa bopp mhm. mooy jigéen bi nga xamante ne borom këram daf ko soxla mhm. mu ne ko da ngaa fàtte li ma la laajoon kon jaaykat kii jaay boppam mooy ki nekk ci biir néegu sëyam di jaay boppam su ñee jaay bopp rek dañuy defee ne ñi ci biti la ñooy jaay seen bopp mais jigéen a ngi jaay boppam borom këram kon jigéen sew-sew yooyu nañ ko bàyyi xel li da Fatima loo wax nañu ragal yàlla nañ xam yëg sëy bi xam na yàlla kese la du mbir mi yàlla mm-hmm. kese la mm-hmm. yàlla mooy boole mm-hmm. du nit moo leen di ba boole leen yàlla moo naan ñi ñoo war a ànd kon bu ñu àndee kenn ku ci ne lu affaire tartar lu metti metti delloo si sa xel te ragal yàlla te xam ne fii yàlla moo la boole góor ki mm-hmm. yàlla moo lay may njaboot mm-hmm. xañ borom gi say moroom mm-hmm. xañ njaboot gi say moroom kon nañuy rafetal lu jëm ci mene weeru koor gi man naan ku sëyul ba weeru koor jot sax fexeel sëy fexeel jéggalu nañu yëkkati suukar koor di jox suñu ay borom kër nañu yëkkati suukar koor dimbali suñu ay doom yi nekk si biir néegu sëy te amuñu ko di leen njëkk ñooñu ñoo dimbali ñi ñu a dimbali ba pare suñu paree ku ca xaj ñu mhm. boole ko ca ndax weeru yiw la mhm. weer la boo xamante a dogal nit sax dafa am yiw mhm. waxatuma la nga yëkkati suukar jox nit chaque jour mu koy ndogoo waxatuma la nga faye nit mburu chaque jour mu dem di ko jël di def yu baax loolu dafa am